mu xar géej gi suba la de waaw looy wax ci loolu man personnellement laay wax man hmm. sama pas-pas di nga dem nu mu du du ma fa dem yàlla du fa hmm. dem hmm. mais personnellement lay wax man du xam-xam du wilaaya daraja du dara lu ne ci moom loo xam ne gis naa ko ba tax ma rafet njort ne moom mën naa def lu jege waxuma la xar géej gi mais teg potu ndox sax <laughs> xàjjale ñaari côté yi gisuma ko ci fétiche la wala. may ma tuuti rek. Hmm. nga baal ma cheikh bi gis nga hmm. dafa am ñaar yu mu boole te bokkuñu. Hmm. xam nga tey ji mënoo boole mënoo fay sa làmp yi fii lëndëm ba pare itam nga bëgg fii leer te mi nga lëndëm te taaloo làmp leer ak lëndëm mënuñu fekkante bëccëg ak guddi mënuñu fekkante mënoo woote woo ne taaliba Cheikh Ibrahim nga di woote woo lu jëm ci yàlla hmm. xam yàlla hmm. wala di woote woo ci lu mu mën a doon hmm. di woote ci diine di sukkandiku ci kaamilu alquran ak ci aaya alquran ba pare di jëfandikoo fétiche c'est impossible mënul nekk fétiche moom ñaari fi nekk da ngay mën nga génn ci cadre suñu borom dugg ci cadre seytaane mbaa nga génn ci cadre seytaane dugg ci cadre suñu borom léegi nag li tax ñoom li lay wan ne seen gàtt xam-xam rek li la koy wan muy ñoom xamuñu ne sax ñi ngi bo ñi ngi ñi a boole lu mënul ànd ñi ngi bëgg a boole lu ma taan fitis bu ñu fàtte ne xam-xam la comme yeneen i xam-xam. xam-xam dafa yaatu. mais du xam-xam yëpp a baax. ba ci yonent bi bi mu ñuy wax ñu faju lan la ñu wax. boo leen dee faju na ngeen faju ci lu dagan kon nekkate nekkate am na faju gu araam. waaw kon nañu xam ne xam-xam te moom téere bi may yaakaar ne. moom la sukkandiku ba wax loolu. njuumte gu rëy. su fekkee ne téere bi ma yaakaar ne bi ma dégg ci sama nopp mu wax ko hmm. muy batutaa bi mu sukkandiku hmm. njuumte gu rëy hmm. ñu bari dañuy juum ne batutaa jinne yu am doole yi seytaane yi ci nekkoon majorité bi di ñii dee nañu ñii tuub nañu <laughs> ñu bari xamuñu loolu te loolu seen gàtt xam la dama ne bari na fi ay téere yoo xam ne ay sirru yoo xam ne jinne yi seytaane yi ci nekkoon amoon doole te nekk ci tout seeni tur nekk ci biir téere bi ñii tuub nañu ñii dee nañu. kon pouvoir boobu amatul. waxuma amatul de. waxuma amatul dama ne loolu njuumte la. ñii dee nañu ñii tuub nañu moo tax ñu ci bari ñuy liggéeyee téere yooyu bu ñu woowee jinne yooyu ba santaa du leen wuyu ay jinne yu ndaw ñu obligé yu wuyu leen fàdd leen moo tax ngay gis ñuy obligé di dof. wala ñuy dugg ci yenn ay problème wala ñuy mujjee ci ay yoo xam ne kenn xamul lu mu. kon moom kii nii loolu mën na ko dofloo. li muy pratiquer noonu. bu fekkee ne lim li mu li mu wax ne moom loolu la yor te ca la ne. Hmm. waxuma la dof may loolu ci gën a tuuti. Hmm. est-ce que xam nga ne bari nañu fi mu bëggoo sëriñ dañ leen a war a faji hmm. bari nañuy wax ne dañoo faj dañuy fajaat yàlla mi ma tiim xam na ne dañoo war a faju ci parce que dañoo feebar. seen bopp yee dem. de dañu dëggantaan dañoo dof <laughs> am na ñuy wax ne nit ki dafa am rab dañuy faj rab te ñoom ñoo ëpp ñëpp rab. loolu dafay dëgg. nit suñu waxtaan dañu waxtaan li nga xam ne moom moo am te li ñuy wax sénégalais yëpp xam nañ ko da ngay mm-hmm. gis sëriñ bu taxaw ci télé di faj hémorroïde fekk dafa am hémorroïde mm-hmm. mm-hmm. man gis naa koy faj ku day faj asthmatique moom dafa asma asma koy bëgg rey bu ñëwee sama kër du nooy mu bëgg a faj nit te nee na doon day faj asma dafa yor ay garabam da ngay gis ko naan day faji rab te moom si jëmam dafa amee rab day crise gis naa ko ñoom dañuy woo loo xam ne xamuñu ko sax majorité ci sëriñ si nekk di def seen basi yi wala ñu samp wala ñu woote woote ak fee fétiche li ñuy wax sax xamuñu ko. mën na leen a lor. looloo ci gën a tuuti. mën nañ sax dee. dama ne am na ci xeetu ji damay duma tudd dara mais dama ne am na ci jinne joo xam ne sëriñ si moom lañ gën a yab. Hmm. te li muy fàdd ci ay doomi aadama par par par par par par année. 1111 hmm. personnes dina ko rey par année. Hmm. benn jinne boobu rek. benn jinne boobu ci li muy fàdd ci li muy utiliser ci ci ay ci ay nit sacrifice boppam. 1111 hmm? 1111 personnes dina ko rey par année. te ñoom dañ koy tudd. te ñoom dañ koy woo te xamuñu ko sax te loolu xa loolu ci jëmmam xamuñu ko. Hmm. te loolu tuuru la moom si jëmmam. Ah yéexut la ah moo tax ma ne la dafa am loo xam ne yàlla nañu yàlla defalaat ñu am jotaay bu gën a yaatu. incha allah lu bari dinaa ko leer. parce que nii ngay lii may gis dafa may metti hmm. man su ma toogee ci palaatoo si ci ci télé di seetaan. di gis ñuy wax man damay rus. wallaahi wa rabbul kaxabati damay rus. parce que yéen ñëpp lañ boole ci benn saak. non waxuma waxuma ñi ñi nga xam ne ñoo ñuy jugé man ñiy wax laa wax ñiy mbubboo ak cëriñ di wax. Mm. barki démb laa fi dégg am koo xam ne taxaw ci télé bi devant tout le monde naan dëmm day lekk nit comme yow ni ngay jëlee sa yàpp di ko di ko suppoo di ko lekk. Mm. nga xam ne ndey ndeysaan xamul sax. Mm. xamul sax lan mooy dëmm. koo ci laaj luy dëmm wala luy seetaan wala luy jinne mënul ko sax leeral. yow mën ngaa faj feebar boo xamul. dañu waxante dëkk mhm. nit bala ngay mën a faj feebar da ngay xam feebar bi mhm. <laughs> masalu tëju ñoom xamuñu feebar bi koo ci laajoon dëmm dëmm rek koo ko ci laaju na ko lan mooy dëmm mhm. wallaahi wa rabbal yi mënulaa tegal baaraam ne la lii mooy dëmm xamu ko bari na ñuy wax ni mais mosuñu gis sax ku jëfoo mosuñu gis ku ñu garanti ne kii dëmm la am naa koo xam ne yaa xam nga ko xam naa ko muy Alaaji Malick Guèye ñu nekk fii Colobane xam nga ko mooy mi daan bind ci livre xarum tabaski. xam naa ko xam nga laaj maa liggéey bu baax. Hmm. man jaar naa ci loo xam jàngal na ma. Hmm. boo demoon ci moom ne ko sëñ Baara day wax dafa wax lii ci dëmm dana la wax man xam naa li may wax wala xamuma. Hmm. man mboolem lu ma xam ci mbirum dëmm koo xam ne moom la moo jàngal. koo xam ne moom la moom la. moom dëmm la li ma lay waxee laaj ko baat. kuy dëmm ndooy baan la woo téléphone. ma def émission. di waxtaan ci affaire dëmm ak ci li ma ci jàngoon ci xam-xam. Hmm. mu woo Ndoye Bane téléphone li ma lay wax woo Ndoye Bane nga laaj ko ko. bu hmm. du dëgg nee na du dëgg. Hmm. aloo Ndoye Bane mu ne ko waaw mu ne ko dama la soxla woon mu ne ko loo mu ne ko man seen émission bi ngeen doon def démb. ci sëñ Baara nag dama ci bëgg a wax. mu ne ko loo ci wax mu ne ko man mii di wax a yow dëmm laa ah Bane coupé ne ko bul ma woowati mu insisté. baan yónnee ko message sama numéro mu woo ma. Hmm. moom dëmm bi. waaw li ma lay wax dama ne li ma lay wax kay ñi ko fekkee mi ngi fi. waaw moo fa ñëw xamal ma lu bari lu ma waroon xam yokk ci li ma xamoon. moom dëmm bi. dégg ko li ma la wax ragaloo lu may ragal <laughs> lu may ragal ci loolu li ma la wax dama ne la bu fekkee ne du dëgg kay. tàllal leen micro bi comme nit la comme man nii ma bu fekkee ne du dëmët dem leen ngeen tàllal micro ndoy baan ne ko ndax sañ baara li mu wax dëgg la war a dëgg comme nit nit mu mel man non nit la nit nit la dëmm du fee dëmm feebar la ah. feebar buy dugg nit la seytaane la boo xam ne dafay dugg nit ki hmm. seytaane dafa bari ay xeet hmm. ëppee nañ nu juróom fukki junni yoon soixante-dix mille fois ëppee nañu ko hmm. dafa bari ay xeet dëmm xeet la ci benn ci seytaane yi nga xam ne ñooy dundee deret deret la ñuy dundee ñoom deret kese la ñuy dundee hmm. léegi pour ñu mën a jëfandikoo ñoom ci li ñuy jàpp jàpp nit ki bu dee seen morom ci nga mais pour ñu mën a jàpp nit ki faaw ñu jaar intermédiaire ci nit maanaam faaw ñu dugg nit pour nit kooku tëdd di nelaw amam tukki moom muy mën di dem di rëbb ji di jàpp ah d'accord hmm. Hmm. même su la xoolee nii moom da dafa am heure rëbbam am nu muy def pour door a mën a rëbbi am buy rëbb luy tax mu mën a jàpp bu la xoolee nii mën na laa sànni dara mais pour mu jàppale day bàyyi moom ba nelaw. Hmm. sëñ bi dinañ amaat beneen jotaay <laughs> jërëjëf.